moom la ñuy waxtaanee tey am mbégte nag dalal ci euh, kenn ci ñi nga xam ne bokk nañu ci ñi ko samp muy membre fondateur yi nekk itam tey membre directoire bu APR nekkoon fi ministre tey mu nekk PCA bu Sodefitex monsieur Mbagnick Ndiaye euh, ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre am mbégte dalal la ci démb ak tey. mais jërëjëf Fatou Thiam euh, maa ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi ma invité pour ma wax ci suñu parti alliance pour la. république di gërëm sa auditeurs yi mais si di gërëm sa directeur général nekk suma turandoo Mbagnick moom njóobeen la man njaayeen la donc euh, am mbégte ñëw daje fii ak yow ci ci waxtaan waxtaani APR alliance pour la république nag dafa nekk euh, parti boo xam ne bii mu ngi juddu euh, officiellement le 1er décembre 2008 euh, ci autour du président Macky Sall mais avant ça li tax APR juddu nekk na euh, géej gu rëy rëy rëy rëy au long fleuve ah ni ko tubaab di waxee ci ay problèmes d'abord il faut ngeen fàttali ko Macky bi mu nekkee président de l'Assemblée nationale ci la commission des finances je crois à l'époque nga xam ne euh, moo nekkoon à l'Assemblée nationale dafa proposer Macky pour ñu convoquer euh, Karim Wade pour mu ñëw expliquer devant l'Assemblée nationale naka la gérer ANOCI bi ba mu signé lettre bi mu dem boobu la coow li commencé Macky wartoon a def lii en tant que président de l'Assemblée nationale bref coow li bëree bëree bëri bëri. loolu ban année la woon. ah c'était vers années je crois si j'ai ma bonne mémoire peut-être boori deux mille deux mille deux mille sept ah, mais la date exacte fàtte naa fàtte naa ko mais ah quand Macky Sall était président de l'Assemblée nationale ñu mel ni kii Khoureyssi Thiam ak euh, Farba Euh, nekkoon ñi nga xam ne ñi noo nekkoon li fedayin maanaam ñi nga xam ne ñoom lañu ñu envoyé woon au charbon ñi ñëw attaqué président euh, Macky ci affaire boobu def ci la sax le président Ablaye Wade ne une faute politique se paye cash que donc coow li di jolli coow li di jolli Macky nekk assemblée euh, ñuy comploter député yi ñu leen di oo benn par benn ñu song Macky bee def euh, li ñuy wax naan euh, motion maanaam projet bu wote benn projet de loi bo projet boo xam ne bii euh, président de l'Assemblée nationale cinq ans lañ koy fal dañ ko fal pour juróomi at mais loi bi ñëw ne léegi président assemblée nationale benn at lañ koy fal et puis day def rétroactivité donc ça suppose que président Macky Sall cinq ans yi ñu ko faloon cinq ans yooyu dootul am mais même at mi nga xam ne bi euh, mu ngi koy def bu bu neexee député yi ñu def ko wote ko motion ñu remplacé ko donc euh, ci xeex boobu nag ak ci période boobu euh, nekkoon na lu métti woon métti métti métti ñun ñi nga xam ne ñu nekkoon ak président Macky Sall ci àll l'Assemblée nationale parce que man ma nekkoon conseiller technique am chargé de la jeunesse des sports de la culture maag si gini si ñu bokkoon ñu bokkoon bureau ah woon na lool métti woon na lool parce que ah, dangay gis nit ñi dugg di génn ñi di réunion fii ñi di comploter fii. moom naka la dundee période boobu moom Macky Sall. ko dundee avec li tubaab di wax stoïcisme calme xamoon na ni ñi lii lañ ko fexe fexel mais dafa ne woon duma leen may. occasion ñu attendre li seen li ñu bëgg. du ñu yàgg fa ñu jëm daal. waaw du ñu yegg fu ñu dem donc def leen di seetaan mais xamoon na ne allah kulli alin euh, rupture bi moom. Euh, fantasiro bi amoon na bi pare sax. bi ko defee euh, bi ñu demee ba voté voté seen vote bi à l' assemblée nationale ci nag le président Macky def benn déclaration ne comme noonu la moom. lépp lu PDS am suur la ko nekkatul maire Fatick mu nekk discours bu amoon bu amoon solo boo xam ne bii ah, mu ngi ko defoon fan résidence ah, je me keroog waa Fatick yëpp a ñëw ah, mu ne nekkatul maire de Fatick démissionné na PDS di poste député bi taxawoon mu nekk président de l'Assemblée nationale nekkatu ko fi. mu lépp suur lépp. ne leen nag ngoyoo ngoy booti sa doom je crois que donc foofu la affaire bi commencé am ay député am ay sénateur yoo xam ne yi euh, àndoon nañu ak moom mais mu nekk période bu difficile bu metti parce que façon ni fexe bu nekk Ablaye Wade ak nguur euh, nguuri PDS fexeel nañ ko président Macky euh, traquenard bu nekk jëm nañ ko posé lépp loo xam ne li jëriñ nga yi jéem nañoo mettre la pression ci yow wala ñu fexe xoqatal la bu nu xutaal la. ci ngeen bokkoon yéen. ñun ñëpp ci lañ bokkoon. nan ban façon bu nu lañ leen doon def. ah façon bu nu xataal même booy liggéey ci fi ngay liggéey. Mm-hmm. boo nekkee ci yow da nga desoon assemblée. da nga maa njëkk a dem Macky. yi ah waay ba yëf yi commencé tàng ba tàng ba tàng la buub sumay bagage lu tax nga dem li tax ma dem xamoon naa ne tôt ou tard dañuy dem. te comme dañu dem Macky dama njëkk a gore ah, mën naa dem ah, jiitu ko. daal di ko yeewi. noppal daal ko yeew ah, jiitu ko dem ci population bi. commencé nag di waxtaan ak suma askan. commencé di waxtaan ak suma. bala moo dem sax yéen tàmbali ngeen a defar terrain bi. man leen tàmbale nañ ci teere boo xamee ne fii ngay mujjee. nga njëkk fa nga man ba ma buubee samay bagage ñu nag ñoom si gi ñuy aw suñ yoon dem. bokkuñu ci ñi mujj ak euh, agent yi nga xam ne yi cadre yi nga xam ne ñoo ko encadré woon primature ànd ak moom assemblée nationale mais euh, ci ñi njëkk a dem ci ñoom lañ bokk alors donc euh, mais terewul bi ñu demee moom mu nekk weti assemblée fa la dëkkoon ngoon gu jot dañ doon gisee moom di waxtaan ak moom di analyse situation bi Euh, léeg-léeg aussi bon ñuy def yenn action yi quoi que noonu lañ def ba bi nga xamee ne bii euh, déclaré nañ parti bi mais avant ñuy déclarer parti bi aussi Macky am na ay problème yu bëri yoo xam ne yii moom waxu ko kenn mais parti bi def ko ko doon def. quel genre problème. Eh, yooyu yooyu nag bon moom xam na ko. yoo xam ne yi dañ ko doon bunu xutaal dañ doon def la la pression sur sa famille dañ doon def la pression sur ses collaborateurs dañ doon def pression bi ci même ñi nga xam ne ñi xam nañu leen mais comme moom ab xalpulaar la teg ci juddoo ci biir séeréer si yaroo ci séeréer si am jikko séeréer si dëgër bopp lool nag te xam fu mu bëgg a dem kon dëgër bopp lool te xam fu mu bëgg a dem ah je crois que donc yooyu yëpp yëngalu ko woon. surtout ko may daal mu mën a résister. yooyoo ko may mun mën a résister. d'accord léegi xalaatu taxawal parti bi kañ la ñëw dëgg dëgg dëgg ci moom. mais yi taxawal parti bi mooy ba mu démissionné ba kañ la la boo démissionné ci assemblée nationale ak ñu lay bunu xutaal bugg laa troxal li nga mën a def rek mooy nga créer sa structure boo xam ne bii ci nga nekk ci ci période boobu la. wax ñoom Abdourahmane ak ñoom Ablaye Badji ne il faut que ñu créer parti bu ñu créer parti bi ci la ñun ñi ñëpp ak ñoom mbay Ndiaye ñoom Moustapha Cissé Lo Alioune Badara Cissé ñoom Siguini Sy ñoom Ablaye lay bref ñu bëree bëree bëree bëri cadre ñu bëree na amoon nañu sympathie Macky parce que euh, bu nuxutaal beeg toroxal bi ñu ko bëggoon a def euh, Afrique Sénégalais d'une manière générale bëggul kuy newal nit doole. crois que donc euh, sentiment boobu jàpp ñëpp ñu nekk autour de Macky ay ñoom Luc Sarr ak ñoom madame Mariama Sarr ak ñoom ñëpp les premiers ñi nga xam ne ñii ñooy ñooy les vrais vrais vrais vrais combattants. nga xam ne ñu naan les militants de la première heure. les de la première heure ñooñu je crois que donc euh, bu ñu créé parti bi euh, il fallait que. Euh, donc ñu ut euh, nekk dans la légalité nekk dans la légalité mooy fexe ut turi parti bi turi parti bi fexe aussi ut statut fexe aussi ut réglement intérieur bi ci loolu Ablaye Badji ak Abdourahmane euh, proposé ñu ay draft draft maanaam ay esquisse je me souviens bien bi ñuy toog di discuter ci statut yi point par point virgule ah daan noo def. kan moo tànn tur bi APR alliance pour la ah, tour bi nag je crois que Abdourahmane ak ñoom Badji. ah ñoom ñoo ko ñoo ko waroon a proposer. groupe restreint boobu la parce que noyau restreint la. man li ma ci def mooy au-delà du fait que Macky président na plusieurs fois réunion statut yi comme man inspecteur jeunesse sport la participé naa ci réunion yooyu mais j'avais dit à l'époque il faut que ñu def attention je l'avais di à Abdourahmane et à Badji il faut que ñu def attention parce que époque boobu amoon na benn euh, association bu amoon qu'on appelle association des présidents de région ah te comme ay ay ay ay ay ay ñu jonge lañ amal affaire mëneeroo ñoo ab ablaxman il faut que ñu am lu ñu ajouté ci kanam wala ci ginnaaw mhm. APR bi balaa ñuy indi problème bi ci la ñu indi lu moo yaakaar ah, yaakaar bi ci yooyu la jóge quoique donc euh, parti bi juddu na ñu defar suñuy suñuy carte récépissé bi yomboon na waaw mais de comme nañ déposé rek man mi bokkoon naa ci fanweer ak ñaar ñi nga xam ne ñi joxe woon nañ seen carte pour ñu constituer assemblée générale bi def defar tous les textes dem déposé euh, bi ñu déposé nag bon déposé wuñu rek am ci ci saa si déposé nañ peut-être gars yi wut nañ ay galgal def nañ lu nekk mais finalement dañu xamoon nañ ne à la kuli àll il faut que ñu euh, jox ñu suñu suñu récépissé mais récépissé bi xam nga 2009 amoon na élection locale. Mhm. récépissé bi génnul avant 2009 après 2009 la génn. d'accord donc en 2009 bu ñuy dem ci locale yi euh, dañoo dem ci ñaari ñaari liste ñaari liste benn bi dekkal ngor la. Mahmoud Saleh parti Mahmoud Saleh euh, bokk na ci parti yi nga xam ne yi ñoom ñoo. ñoo ñu abaloon récépissé ñu tudd dekkal ngor. ci dekkal ngor boobu sur à dans certaines commune dans communauté rural gagné nañ ci boo demee Fatick communauté rural bu euh, Mbelaka Jaw Dekkal Ngor lañ ko gagné communauté rural bu jaxaw Dekkal Ngor lañ ko gagné ma jox la ci ñaari exemple yooyu rek beneen bi ñu dem ci Touris Sigil Sénégal ci Touris Sigil Sénégal nag la Macky Sall dellu siwaat nekk mairi Fatick donc gagné département Fatick nekk mairi Fatick équipe nekk euh, responsable conseil régional bi ak conseil conseil départementaux yeeg yooyu donc 2000 2009 ci yooyu la ñu. da ngeen yaakaar ne bañoon ngeen bokk ci élection yi moo tax joxuñu leen seen kii. waaw moom mënoon na nekk parce que euh, booy jàmmaaloog say say say ennemi moom galgal gu nekk na la ko galgal. Euh, yooyu itam saa yu lonkee galgal. nga fexe dindi galgal gi yaakaaru ñu woon ne dinañu am euh, aval ñoom Mahmoud Saleh ñoom Ousmane Tanor Dieng pour ñu dem ci tur yi si Sénégal ak dekkal ngor je crois que donc bi résultat yi génne vraiment amoon nañu ñoom ci seen bopp amoon nañu njaqare bu baax a baax a baax a baax parce que nag c'était quelque chose d'extrêmement surprenant mais li ñu may chance mooy 2000 ba Macky jóge 2008 ba def sa déclaration dafa dugg ci àll bi àll bi dëkk bu nekk i taxaw na fa dëkk bu nekk i fanaan na fa façon ngi ndox mu nekk Macky naan na ko ànd ak nit ñi ñu sillonné mm. sillonné Sénégal sillonné Sénégal boo melee noonu nag nekk gone gu yaru mm. nekk ku compétent nekk ku xam fooy dem ah nekk aussi un homme du peuple parce que li muy def loolu yëpp coupé wut ak la base Hmm? je crois que donc di nga am sympathie te nag nga tenir un discours et au programme ko yaram qui donne espoir parce que li fi nekkoon pendant douze ans nekkoon na loo xam ne lii nit ñi xawoon nañoo commencé am seen i seen i njaqare parce que problème yi taroon nañ courant bi kuy xamañ la woon dem Youssou Ndour sax def na ci ba def ci benn wuy boo xam ne bii si woon na hmm. ah bon ndox mi day coupé ah, dund gi euh, ku ñëw nag def des propositions concrètes de changement de situation sociale de comportement d'orientation def des propositions de changement également de vision ah je crois que adhésion bi euh, c'était facile parce que aussi on était en face d'un régime au bout du rouleau. D'accord alors bi résultat yi génnee. est-ce que loolu bokk na ci li encouragé président Macky Sall pour mu dem ci élection présidentielle bu 2012 wala moom ba mu génnee rek bëtam daf ko tegoon ci présidentielle ba. mais boo créé woon na boo créé partie sa objectif mooy nga gouverner moom kañ ba ñu avant même avant même ñuy ñuy dàq assemblée nationale ñun amoon nañu suñu vision ne bu ñu génnee ah, bu ñu dàqee ba troxal troxal nañu génnee nañu léegi li ñu wax nag mooy jàkkaarloo ak ñi ñu dàq ñu réew mi ci août boobu nag bon mu ñëw avec un programme ci août boobu aussi mu ñëw ci avec une connaissance du milieu xam na terrain bi tey boo ko ne woon Macky Mbélaka Diaw fu mu nekk mu la fii la nekk boo ne woon Fanaye fan la nekk mu ne la fii la nekk boo ne woon Mame Patim fan la nekk mu ne la fii la nekk boo ne woon mandat douane nooy def ba dem mandat douane makki mun na la wax ne nii ak nii ak nii boo nooy def ba dem Saraya wala bu nooy def ba dem euh, ci yeneen dëkk yi crois que donc euh, ñun nekkoon na ci suñu suñu suñu vision ne il faut ñu attaqué loolu moo tax sax bi gars yi nekkee fii naan oui du ñu dem ñi naan nañu dem place euh, de la nation ah nañu kii moom aw na yoonam dem dem na bu yàgg. moom waa fi mu teg bëtam fa la bëggoon ah oui fi mu teg bëtam la bëggoon a yegg te yegg na fa. d'accord yegg na fa. alors diggante 2009 ba 2012. naka ngeen ko dundee ci waajal élection parce que tournée yi nga wax nii moyen moo koy def naka ngeen organiser woo ba vraiment 2012 ngeen ñëw nekk la surprise du chef. mais euh, nekk na loo xam ne lii boo jafe na jafewutoo doon boo jëlee suma kaa xam nga man am na benn milieu géographique et communautaire ah ku ci nekk da nga doon utiliser say moyens propres man suma oto laa doon jël suñu carburant. Débrio boo jëlee par exemple toute la région du Sine de de de, de Fatick et même du Sine Saloum à l'époque ah fu communauté bi nekk taxaw nañ fa jéem nañoo vanter euh, le programme que nous avons jéem nañoo fexe am suñuy nit ah jéem leen a samp jéem waxtaan ak ñoom euh, ensuite amoon nañu aussi ñoo xam ne dañu doon jàppale dañu doon jàppale bo moom it amoon nañu ko jàppale. kooku aussi c'est pas un secret de polichinelle parce que munoo def tout le tour du Sénégal euh, village par village quartier par quartier jéeg si ay une heure du matin deux heures du matin trois heures du matin wala départ te amuloo ñu la jàppale je crois que donc loolu moom c'est pas un secret de polichinelle ku ci nekk sa bopp individuellement responsable dans ta dans ton coin ah, da doon investir mais aussi moom du doon investir au niveau national ah, donc dañ ko jot jot keroog ba ngeen gañee nag euh, présidentielle bi naka ngeen ko dundee d'abord élection boobu. mais avant ñuy gagner élection avant ñuy gañee présidentielle bi da nga naan kañ premier tour bi bu ko dépouillé buñ ñu dépouillé premier tour bi. ba ngeen dem ba ba ñu ne ñooy deuxième. est-ce yaakaaroon ngeen loolu sax. mais mënu mos nañ ko yaakaar parce que boo xoolee aussi da nga eh, eh, gis nga Fatou. situation da nga koy analyser rek nga xool paysage politique bi à l'époque ñen ñoo ne woon les grands porteurs de voix à l'époque à l'époque laa wax ñen ñoo ne woon les grands porteurs de voix ensuite il y avait des pôles ah yoo xam ne dañoo dañoo dañoo defoon ay pole de concentration PS daa amoon ñum doon ñum doon àndal. PDS am ñu mu doon àndal ñeneen ñi am ñu mu doon àndal donc donc euh, boo xoolee ces différentes forces espoir bi yaakaar bi yaakaar Sénégal bi ak euh, bëgg a sot ah sentiment de de soutien bi mag yi amoon je crois que loolu moo tax ñu génn au deuxième tour mënuñu woon ne ñàkk a génn au deuxième tour bi ñu génnee deuxième tour nag ah foofu nag ci diggante bi. ngandam travail de sensibilisation d'approche dem seeti nit ñi waxtaan ak ñoom Benno Siggil Sénégal euh, dem seeti yeneen parti politique yi di waxtaan ak ñoom dem si yàlla Ahmed Dansokho ñoom waxtaan boobu seeti les grands cadres waxtaan ak ñoom ah ñoom moom bu muy def loolu ak une équipe restreinte ñun ñu ngi sur le terrain. ci population bi ci population bi. ñun nekkoon nañ ñoo xam ne ñii euh, boo boo jëlee euh, photocopie photographie euh, APR dafa am ñoo xam ne ñii au sommet lañ ne di waxtaan ak seen naataango yi nekk au sommet. am ñoo xam ne ñii ci suuf la ñu nekk dajeeg population bi hmm? donc boo jëlee synthèse yi ci yooyu yëpp finalement di nga arriver à un moment où tu auras un groupe assez solide assez compact assez homogène. parce que au niveau du sommet di nga waxtaan ak nit ñi euh, ñu fekk si la mais au niveau de la base nit ñi aussi sa gars yaa ngi waxtaan ak ñoom susciter at beneen intérêt je moom moo tax euh, au bout du du rouleau ñu am euh, Benno Siggil Sénégal. d'accord léegi élection bi ngeen ko gagné naka ngeen ko dundee. ah dund bi nag neex na. Eh, keroog moom guddi keroog bi. ah, ah façon bu nekk nga gis. ñi yuuxu fii jaar fii ñii jaar fii ñii jaar fii moom mu jaar fule moom mu jaar fule ah. keroog boo demoon siège yi APR siège APR mu ngi nekkoon sur les devoirs de liberté 6 la ah boo weesoo prise prison bi foofu jusqu'à trois heures du matin kenn xaju fa boo demee këram kenn xaju fa boo demee Radisson kenn xaju fa partout foo dem nit ñaa ngi féetu fépp bon après nag euh, ci la ñu nelaw mais bi ñu yeewoo nag ñu ne ah léegi nag. responsabilité yu mag responsabilité ñëw naka la bon moom mu toog. est-ce que pare woon ngeen. oui pare woon nañu xam nga ay boo xoolee entourage Macky à l'époque ay homme d'état rek a ko ay homme d'état rek ak ay techniciens ñoo ko entouré woon d'abord moom homme d'état la woon parce que bul fàtte ne nekk na directeur Petrosen nekk na conseiller technique président euh, Ablaye Wade. jóge fa nekk ministre ah ministre de l'énergie ministre des mines nekk ministre ministre de l'intérieur ñoo nekk premier ministre ñoo nekk président assemblée donc moom homme d'état la woon avant mu ñëw arax ci doole nag ñoom Alioune Badara Cissé yi nga xam ne yi ñoo ko entouré woon ak ñoom Mbaye Ndiaye député ak ñoom Moustapha Lo bon ñun ñi nga xam ne ay cadre supérieur lañ nekkoon dans l'administration ñoom Benoît Sambou yegg si ñoom Seydou Guèye Euh, bref il y a tout un ensemble de de personnes et de personnalités yoo xam ne yi euh, bi ñu gañee toog nañu ak moom ñu waxtaan euh, maintenant nag commencer élaborer les esquisses d'un vrai programme de gouvernement programme boobu moo nekkoon suñu programme yoonu yokkute bon bi ñu ko defee ci lañoo ñoom Mimi ak ñoom ñëpp dugg réfléchir ensuite ñu mettre le premier gouvernement en place premier gouvernement boo xam ne bi bon ci ñi gënoon a yaakaar ne mënoon nañoo assumer certaines fonctions ah ci lañ leen dañ leen convoqué ñeneen ñi bon nekk dans les autres sphères de l'État jusqu'au moment où au fur et à mesure bon qu'il y a des dans la direction du parti. premier gouvernement mu nga nekkoon ci ministre des sports. waaw man au départ bokkuma woon. au départ bokkuma woon euh, man euh, ñu ngi nekk en avril deux mille euh, deux mille douze. man novembre 2012 laa ñëw. premier remaniement gouvernement yi. deuxième gouvernement bi. deuxième gouvernement bi laa dugg mais ci 2019. d'accord donc j'ai fait à peu près six à sept ans. d'accord. alors ñu ñëw nag ci léegi euh, bi ngeen yoree nguur gi mhm. euh, président Macky Sall gis nañu ne dafa amoon ay alliés ndax dafa waxoon euh, gagner ensemble gouverner ensemble tàmbali teg alliés yi ci ay postes APR dem ba gis ne sax xëy na alliés yi lañ gën a fullaal ak ñeneen coalition yi nga xam ne mel Macky 2012 neen ñoom ñoo fi nekkoon ba dara dul dara entre les deux tour ak euh, yooya bokk nañ ci ñi porté woon en tout cas candidature président Macky Sall APR parti bi nga xam ne moom la ñu taxawal ca ndoxteel ga mu ànd ak président Macky Sall naka la dundee cohabitation ak allié yi ñenn nañu gisoon ne xëy na sax ñoo leen ëppale ci yëf yi. donc Fatou Thiam da xam ne euh, à partir du deuxième tour. alliance bi dafa dafa yaatu hmm? ci nga gis ñoom PIT ñoom LD ñoom RND ah ñoom PS ñoom AFP donc finalement à partir de du deuxième tour ce n'était plus APR pur et dur et puis même APR pur et amutoon parce que dafa amoon coalition euh, kii Macky 2012 donc ay parti yu bëri ñoo constitué woon Macky 2012 ñu dem def benno benno benno bokk yaakaar Benno Bokk Yaakaar ay parti yu bëri ñoo ñëw ajouté wu ci au deuxième tour mu nekk donc une multitude de partis boo jëlee intrinsèquement APR APR pris individuellement ak Macky 2012 à peu près ay 26 pour cent la ñu amoon ah à peu près euh, premier tour bi à peu pour cent la ñu au deuxième tour on a eu plus de 50 pour cent on a plus de 50 ñeneen ñi ñoo indi li ci teg ñeneen ñi ñoo ñëw indi li ci des ak les indices je crois que donc il que ñu bàyyi ne APR pur et dur APR pur et dur représenté wu sax ah plus de. Euh, 30 pour cent non 26 pour cent parce que APR pur et boo ko jëlee dañ ciy génne tout ce qui est Macky 2012 APR dure pur dure ñi am récépissé APR ñooñu war a ñoo mën a constituer 20 pour cent Macky 2012 ñëw ñu nekk vingt 26 pour cent. Macky 2012 plus benn sigi benn Bokk Yaakaar ñëw ñu nekk plus de cinquante pour cent donc ñu ñëpp ku ci nekk indi nga PS indi na AFP indi na LD indi na ñëpp indi nañ donc vraiment en ah, cette histoire de PS man man kenn gënu maa nekk at Macky gënu maa nekk APR. Macky Sall gënu ma nekk APR donc nay nay nay leer fii léegi léegi léegi léegi Macky gënu maa nekk APR parce que turam a ngi ca récipicé ba suma tur suma suma tur nga mais. vingt 26 pour cent yi ñu am c' est Macky APR plus Macky 2012 plus de 50 pour cent yi ñu am ba gagné élection yi c' est Macky APR Macky 2012 ak. Benno waa Benno Bokk Yaakaar Bokk Yaakaar donc vraiment euh, gouvernement bi bi ñëwee itam Macky am na am na vision am na présence d' esprit ca départ ba LD ngi ca AFP nga ci LD nga ci AFP nga réew mi mag réew mi mu Idrissa Seck sax. waaw ndax bokk na ci ñu ko jàppale woon aussi. ñu nga ca PIT mu nga ca ah et cetera et cetera donc ñooñu ñoo constitué le premier kon daal séddale bi euh, poste yi gis nga ne jaar na yoon. non yoon vraiment jaar yoon vraiment euh, euh, il faut que aussi ñu nekk ñu waxante dëgg APR boo ko jëlee songu. song APR ah ëppul hmm, yeneen yeneen yeneen yeneen coalition kon daal su ma la déggee bu doon APR dong Macky mën naa bañ a doon président. oui bu doon APR dong pire songe songe songe songe Macky mën naa bañ a doon président mais APR plus Macky 2012. plus waa Benno APR plus Macky 2012 plus Benno moo tax Macky nekk président. leer na léegi euh, noo gisee kon ñi nga xam ne ñoom dañuy kaas ni président li muy jox allié yi moo ëpp nitu démbam yi def leen sax farfate ci xalaatu ñenn ñi euh, au profit des euh, nouveaux venus yi nga xam ne après ñoo transhumé. waaw mais transhumé que transhumé ak bàyyi na mbokk ñu nekkoon pur et dur ça peut mais boo jëlee politique politicienne maanaam politique politicienne kooku bu ñu ko waxee mun nañu ne ah, am na fu ñu amee dëgg parce que Macky bi muy ut réew mi dëkk bu nekk dugg na fa façon nit bu nekk volontaire na ànd ak Macky mais ba mu faloo stature bi mu am léegi stature président de la République permettre ko dëkk bu mu taxaw. mu taxawaat fa est-ce que yaa ngi may comprendre bu baax. dama ne Macky bi muy ut réew bi nga xam ne simple militant simple citoyen la woon. ñëw fanaan jawle wala mu fanaan mbelaka jaw wala mu dem fanaan añam siwol wala mu dem fañaan euh, mam fatim du Macky bi nga xam ne président de la république donc ñooñu mu doon gis ñooñu mu doon waxtaanal mënatu la waxtaan ak ñoom mënatu la waxtaan ak ñoom mënu leen tam gis ñun ñi nga xam ne guddeeg bëccëg ñu ngi doon lambar lambar yi këram wala di lambar lambar yi bureau bi nag fii VDN mën nañ ko gis parce que dafa changer de statut. statut état chef d'état la yoon. nag du ñëpp ko comprendre am ñoo xam ne frustration bu rëy lay lay jur si ñoom. nit ñi comprendre ko man ci àll bi laa dëkk samedi du ma toog Dakar yow wóor na la jéem nga ma fee napp ba sonn te mënoo ma mënoo ma jàpp. tey ci grand oral bi ngay daw rek. tey moom chance nga am rek jàpp ma donc man damay toog di ko expliquer nit ñi mais yi am na benn euh, affaire bu muy def gis nga ñooñu mu doon waxtaanal ñooñu mu doon gisanteel dafa am benn ñu ko doon recenser kon takki ñooñu ne temps en temps nga jékki-jékki rek ba mu ne la kër kookan la man la Macky sax ñu ne ko eh président mu ne la noo def da ngay jékki ñun ñi nga xam ne bii mun nañ ko kii yónnee ko texto di ko diw wàññeeku na a constitué délégation démb rek la ñu am benn maire boo xam ne bii euh, Fatick la dëkk wàññeeku muy maire caari njal gi mais def ñu oo ci guddi gi rak rak rak rak délégation dem seeti ko bu amee temps bu demee foofu jaar ci kër ga euh, ziyaare ba kër ga jaale leen doog a donc euh, am na ñoo xam ne ñii nguur dafa yaatu mais am na ñoo xam ne ñëpp mënuñ ci dugg nañu wax nit nag mais mun na temps en temps mu case ñi case ñi case ñi Sénégal aussi dafa yaatu c'est pas que zone yi yëpp la mën a dugal ay nit mais fu mu dugal rek xamal ne ab sénégalais moo fa nekk ab malien ne fa wala ab burkinabé mais ab sénégalais fa nekk. leer na alors seen yorin ci nguur gi boo ko doon natt juróom-ñetti at juróom-ñetti at yi lan lay joxe. mais d'abord euh, li muy joxe mooy soppeeku bu bëree bëri bëri bu bëree bëri bëri boo jëlee man rek man mairie commune la commune bi mu ngi tudd Ngayoxem Ngayoxem mu ngi nekk diggante Fatick ak Bambey ba mu fay nekk maire 2014 ñaari ñaari ñaari ñaari dëkk ñoo amoon courant fi ma toog fi may wax ak yow nii fukki dëkk am nañ courant. te loolu moo am un peu partout parce que à travers le PUDC à travers le PUMA à travers euh, la CMU ah programme sociaux yooyu nga xam ne yi moom la Macky def nekk na programme sociaux yoo xam ne ñoo changé radicalement ah, ah la vie ah, ci ci àll bi noonu laa koy wax mais yéen nag Ndakaaru ak réew réewum taax moom kenn mënu leen satisfaire. <laughs> dañoo bari lu ñuy laaj ngeen bëri lu ngeen seen i benn ñenke d' accord la woon pour ñu ñëw euh, ci euh, parti bi euh, tey dafa mel ni nag nguur gi ak xëy na ñi ciy dugg ak ñi ciy génn dafa jur jafe-jafe ci seen parti ndax tey dañuy dégg xeexoo bi xëccoo bi ak yu bari yoo xam ne daal am na ci biir APR dundinu parti bi fukki at ak ñaar yi nu weesu noonu ko mën a tënkalee. mais nu ci mën a doon rek. même ci biir kër sa biir njaboot léeg nga gis ñuy fantasiro soit euh, doom yi wala borom kër gi ak ñeneen ñi mais c'est c'est comme ça aussi euh, le parti la PR ah bon ñii ñu ñii ñu ngi ñu ngi kaas ah nit war waruñ ko woon dugal war nañu dugal fii région bi war naa am région bi amul communauté bi war naa am mais ci na communauté séeréer rek. waaw bu ñu neexoon ñu dóor dóor suñu bopp ci ci kii bi ah, waa yaa jëlal jël bon jëlal bay nunk yi jëlal bitig yi jëlal papel yi jëlal basare yi ma ne jëlal xeet yooyu rek bu lay neexoon ñu dóor seen bopp ci kii gisuñ ci seen bopp ñële aussi bu ñëwee ne gisuñu gisuñ ci seen bopp donc nguur moo mel noonu réew moo mel noonu mënoo satisfaire tout le monde mais li nga mën a def mooy am un objectif d'une satisfaction générale et population boobu globalement bénéficié wu ci action yi ngay def boo jëlee tey Ila Touba mais eh, boo demee Ngoy Alioune Sylla ah wala nga dem euh, Bambey ah wala nga dem Ndangal Ndangal ma mais ñooñu wu nañ ci ah bénéficié donc réew moo mel noonu ah nguur moo mel noonu yori ni réew moo mel noonu toujours Ablaye Wade amoon na ko fi Ablaye temps yi Ablaye Wade amoon na fi. Hmm. temps yi Abdou Diouf amoon na fi temps yi Senghor amoon na fi temps yi Macky Sall la fi am bu fi Macky jógee itam temps yi keneen bu ñëwee bu dawalee quelques rek ne ah nit ñi kat. ñun ñi fi newoon bàyyi nañ. léegi problème parti bi est-ce que du structuration ndax boobu ba léegi fukki ak ñaar yi nga nekk ci nguur gi yépp ñenn ñi am nañ ay pouvoir ñenn ñi nekk ci ay post yu yu yu yu kawe ci responsabilité yàgg fa dem ba am benn doole bi ku ci nekk ci ñooñu nag jàpp ni tey yow kàngam nga war nga mën a xëy na toog place bi wala toog place bee nguur en tout cas may leen doole est-ce que bu doon ne organiser nañu parti bi jafe yii dina am. weesoo yàlla ak yonent bi. kenn amul doole Macky moo am doole di ko séddale nit ñi li wax li mu la bu soo yàlla ak yonent bi kenn fii amu fi doole. ci parti bi ci parti bi. ay ñoom Amadou ci parti bi ak ci gouvernement bi. kenn moo fi am doole kenn moo fi am sañ-sañ kenn moo am vision kenn moo am fu mujj bugg a yóbbu réew bi mooy doxal. en fonction de ça ah et en fonction de la situation du moment ah muy def changement. léegi ñàkk structuration est-ce que du mooy problème mu mais structuration xam nga parti bi bañ ko commencé def man mii Macky yónni woon na ma dans la région de Fatick ci département Foundiougne mais il faut ñu structure il faut defal ñu une petite tentative de structuration ñu jël à partir de la cellule de base mais au niveau de la section. mais bi mu defee analyse bi def analyse yi yeneen parti ah ak yooyu après la victoire mu mu ne bon léegi bu ñu structuré mun naa am ay ay ay problème comme gagné nañ nañ leen dawal xool observé mu nekk nit koo xam ne ki aussi buggul ak quatre-vingt pour cent di. di merloo ay nit plusieurs fois nee nañ ko structurel plusieurs fois man wax naa. lan la doon ragal ci structuration bi structuration bi d' abord d' abord xëccoo bi. imposé nit ñëw nag kii lañ imposé ah mu ñëw nekk fi buur di bu mi xëccoo boobu mu doon bañ mi ngi am tey. non non non amul tey amul tey parce que parce que fu mu nekk nii ah, bu weesoo ñi nga xam ne ñi désigné na leen ne leen yéen la parti bi kenn mënut a nekk ni yow. bañ na ko sax ba léegi boo waxee mu ne ce sont les maires maires yi xam nga dañ leen fal population ba leen fal mu ñëw sukkandiku ci maire yi maires yi APR yi ak maires yi Benno yi ñoom ñoo nekk les responsables au niveau de leur collectivité territoriale mais bu ne woon tey par exemple jël naa parcelle Assainies teg naa fa diw mais ñi contre diw boobu dañuy créer ay tendance ñi créer ay problème fii tendance yi yi ñu yi ñu vivre temps Senghor temps yi Abdou Diouf temps yi Ablaye Wade xool parti Ablaye Wade. est-ce que loolu du am ci élection locale yi ñu jëm. élection locale yi mënut a am. Hmm. parce que xam nga li li tax mënut a am lii hmm. mënatul a am xam nga li tax mënatul a am élection locale dañ ne le maire est au suffrage universel hmm. partie bi wala coalition parti bi mooy désigner les mandataires. mandataires yooyu ci la ñu désigner les les les les candidats à la mairie candidats yi bu ñu leen tànnee ba pare ah bu ñu leen ba pare rax ci dolli nga indi sa caution ah yaakaar naa ne. ah mais ñeneen nañoo mer génn d'autant que élection yi tamit ubbil nañ ko ñëpp. bu ñu meree génn fu ñuy dem. ci yeneen yeneen coalition la ñu dem ber seen yoon. Ah, bu ñu beree seen yoon nag ñu xool jàkkaarloog ñi nga xam ne ñi. Hmm. ala kulli àll fat ci am xëccoo moom xëccoo. mënta ñàkk xëccoo mënta ñàkk. mun ta mënta ñàkk mais na nga xëccoo aussi dans la légalité ah, ah et également dans la réglementation. léegi est-ce que structuration mi ngi ci seen xel balaa ñuy dem ci élection yi ñu dëgmal. non fii ak élection yi ñu dëgmal moom mun nañu. xalaatu leen ko mu structuré kooku Macky bu ko sax juum. te Macky nag fin politicien la la preuve gis nga gis nga li def. <laughs> nu mu def ah, xam nga ko. <laughs> déedéet ah, xaw wax ñu nu mu def. daa mbaal gaa yi ma sol suma daal. <laughs> waxuma mbaal leen nga yóbbu leen ba ca biir digg ba ca biir océan ba ne leen fa dig toog leen fii ma dem nappiwaat ñeneen. ngeen xaar ma ah, xaar leen ma ma nappiwaat ñeneen iti. ñeneen dinañ dugg si avant élection locale. ah, ah oui oui oui. ñan ñooy dugg yan ah, kii ah jox ñu ay indice nag. Ah, xam nga kay nag ma si ministre nag. ma ne yaa ma gën a xam indice. yow mi nekk journaliste. di dugg di génn. <laughs> xaw ma de xaw ma wax ñu. jox ñu jox ñu ay indice. ñan ñooy naka dugg. ci ci ci ci ci nguur gi balaa élection yi. Fatou man maa ngi lay xam nga soxlaa tax nga jot ma fii man bokkatuma ci dara xalaatatuma ci dara. ñii du ko xam nañ seen bopp yow xam nga leen. Hmm. man xamuma leen. xamoo leen hmm. d'accord léegi euh, après Macky Sall euh, wala après 2024 euh, je dis après Macky Sall ndax jàpp nañu ne du du nekkaat candidat bu nekkaatul candidat parti bi naka ngeen gisee ëllëgam. nekk candidat ñàkk a nekkaat candidat xam naa fa nga bëggoon a teer si rek. demal nga laaj ko Macky Sall. non léegi candidature bi moom waxuma ci. mais l'après Macky Sall ak ak APR. l'après xamaguñ kañ la. déedéet xamaguñ kañ la. kon amagu leen si réponse. xaw ma ci dara 2024 ak cinq ci yem Macky Sall daal boo bëggee xam ndax na nekk candidat wala du nekk candidat àndal ak Mbagnick Diop mii ngeen def le grand oral chez Macky d'accord xëy na dinañ dinañ ci ñëw président yaa ngi dégg léegi euh, nee nga fi ak élection yi Macky Sall du fi def structuration mais est-ce que yéen a koy xalaat après élection yi ndaxte tamit parti dafa war a am organisation mënul nekk rek une armée mexicaine ku nekk jàppee boppam chef. ma ne parti organisation structurée la da nga am sa règlement intérieur am sa statut hmm? donc. APR du du du euh, conglomérat d'armée mexicaine kooku boo ko waxee itam euh, dangaa nekk ndakaaru rek di ko wax. Hmm. waaw dangaa nekk ndakaaru rek moo boo woon ci àll bi. Hmm. nga xam ne parti bi am na ñoo xam ne ñii xam nañ ne ñii ñoo jiite parti bi. mais bu ngeen nekkee Ndakaaru nag nekk seen ginnaaw télévision yi nekk ci ñoom seen. Ah, ñi gis nii tamit ñi ñu fi gis ñu nekk ay kàngam. ku ci ne yaa ngi di sa morom mbagg Euh, élection yaa ngi nii yegg frustré yi yeggaguñ ah. <laughs> gis nga Dakaru. xëccoo gi mel ni tulleeg male. bu melee ni tulleeg male yeneen région yi meluñ ni tulleeg male Dakaru rek du Sénégal foog nay leer waa Dakar mënuñoo taxaw ci kaw boppi nit ñi Dakar du Sénégal ah donc bu ñu nee tulleeg male seen ambition personnelle personnelle koo ci ku ci mag ki ne woon kaay jël lii. bu subaa dootoo ko dégg bu la nee defal nii nga def noonu la anañu est-ce que déggati nga leen ñi doon xëccoo may maay Dakar maay Dakar ñi naan maay buur Dakar maay maay maay borom Cap Vert rek may borom borom borom kii kenn du dara fii déedéet population yi la ak Macky population yi bu ñu la wóoloo fan la Macky bu la wóoloo désigné la Macky mun na laa désigné ñu gañe la ah Macky mun na laa désigner yaakaar ne yow la nga dem population yi caw la bu baax a baax a baax kooku am na fi ba sonn. xool xoolal seen parcelles yi xoolal seen seen yeneen Médina ak yooyu yëpp ñu fi Macky désigner ñëpp dañ leen caw population soxlawu na demal ci biir àll bi donc Macky mooy désigner mais population bi mooy tànn te ku ci population bi tànnul nga yaakaar ne yow la di balballu boo demee bu la population bi sanctionné Macky sanctionné waat muy ñaari sanction si sa kaw ñaari sanction si sa kaw. alors APR ci mbooloo ak léegi. dafa yokk waaw man kay xam naa loolu nga may wax. non moo am moo am moo am xam nga lu tax mu yokk la plupart ñi nga xam ne ñi ñooy les responsables de l'APR profitant ah des programme sociaux du président Macky Sall foo demoon fu amutoon forage nga def fa forage fu amutoon lampe nga def fa lampe fu amutoon yoon nga def fa yoon. maladie universelle ah couverture maladie universelle léeg-léeg euh, tous les trois mois nga ñu jox la dara ñooñu ñëpp dañuy adhéré waat Macky li ko sauvé du kii ay Ila Touba ak yooyu non yooyu sauvé wu ko yi ko sauvé mooy les les programmes sociaux PUDC CMU ah PUMA ah yooyu ñoo sauvé ci yooyu la war a renforcer ah action bi muy mëne mais bon c'est bien baax na que ñu développé wu en matière d'infrastructure et tout mais il faut qu'on qu'on se développe aussi du point de vue social gerte gi par exemple boo jëlee à deux cent cinquante mu fekk ko à moins de moins de deux cent indi ko bi deux cent cinquante permettre aussi chinois yi ñëw ah ñeneen ñi ñëw jën jën non c'est pas des c'est des concurrents mais des concurrents yoo xam ne yi euh, ils permettent le développement des cultivateurs permettent la développement des paysan fu ñu jaayee euh, deux cent cinquante kii jaay trois cent cinquante ma dem jaay ci trois cent cinquante bi li mu war a def kañ mooy mu fexe ba Sonacos di jaayee trois cent jënde trois cent cinquante loolu la war a def. yokk doole Sonacos loolu la war a def bu ko deful Sonacos day daal parce que man du am suma gerte. ah bugg lu neex Sonacos ma jaay ko ko à deux cent cinquante. alors tey te gis trois cent. <laughs> c'est la te aussi. d'accord it ci deux mille vingt lan mooy place su ñu mel ni yéen autour de Macky Sall na tam déggoon nañ fi ay temps euh, bon ñu bëri ci ñoom. gis gis ko sax jafe-jafe la ñenn ñi bon wegatu leen amatuñu accès si moom ñi naan Macky Sall. Euh, euh, wegatu leen moo amul. Ah. Macky ba ma ko xamee xam nga makisal Sall ba ma ko xamee boobu football nawetaan lay def. ah doon na football. football dirigé nawetaan donc Macky du ku ñuy yar mu ñàkk wegat wéggat yi nit. dama la wax fii léegi ne ñun ñi nga xam ne ñi guddeeg bëccëg ñu ngi woon kër Macky Sall bëccëg ñu ngi woon bureau bi nekk fii VDN ah nekk ak moom ci gouvernement bi mu nekk suñu président. ah ñu nekk ci gouvernement léeg-léeg nga bëgg koo gis sax doo ko gis xam nga lu tax Macky dafa changer de statu il faut que nit ñi jële ko noonu Macky bañ doon fekk pël ga ah, walla ñu fekk ko Foundiougne hmm, wala ñu fekk ko Kaolack mu ànd ak ay nitam ah du Macky bi nga xam ne moo nekk fii tey Macky Sall dañ koy dégg rek. ma ma la doon laaj ndax yow euh, ci ñi jege Macky Sall euh, président de la République depuis le début ci nga bokk euh, benn instant génne woon na la ci gouvernement bi toog lu yàgg après nga doog a ñëw nekk PCA Sodefitex ñu jëloon yow sax sa kaa ak kaawu ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nee ñu tey pour ñu jot ci moom jafe-jafe la pour ñu vraiment gis seen bopp ci nguur gi en tant que ku xeex démba jafe-jafe la li ngay wax ni mën naa ko nangu mooy que ni Macky Sall ba woon 2008 ak bii du benn mais. il faut que ñu revenir à la réalité ah Macky Macky ba nga xam ne bii bu dëgg bu jëkk foo na gis ko ak Macky léegi ute na bu ko defee bu ko defee sax garde corps am yi ñoo ko naan. hey toogal fii téléphone yi aussi euh, du n'importe qui ma jot téléphone am. changé mais mais chef d'état yow nga xam ne yow Fatou Thiam ak sa Mbagnick Diop ak eh, yëpp moo yee moo leen ko yow pour nga gis Mbagnick pour nga def interview fii da nga ñaan permission Mbagnick. waaw ah, suñu patron moom jafewul nag. ah suñu patron. jafewul de très accessible. Ah, sama baat si kaw. daa yomb comme man ah jafewul si ñun. parce que néew président la république ku ko soxla jot ko. néew mu président de la république. Eh. daa mais bu ne woon président de la eh, nga xam ne ba nga gis Mbagnick nga gis ko moom beneen affaire. ba ñu yegg ci boobu. kañ. ba ñu yegg ci ba ñu yegg nekk président de la république su boobaa ñu def test bi ñu fàttali ne Mbagnick Ndiaye la ñuy dalal ci Demb ak Tay di waxtaanee APR fukki at ak ñaar yi nga xam ni am na ko léegi nag monsieur le ministre dañoo gis ne keroog bi ñuy def anniversaire u parti bi président ñëwul ñi nga xam ne itam dàq na leen ci nguur gi dernièrement ñëwuñu ñu bëri nag ne APR daal fi mu ne ni daanaka dara desatu fa dàq ci nguur gi ah, faut qu'on soit sérieux ah. dàqu leen non taxal nguur kenn du fa nekk ad viternam waaw mais daf leen limogé c'est pas un problème de limogeage <laughs> ah. ba départ 2000 2000 2012 4 avril 2012 ñam nommé ñam nommé woon anañu anañu est-ce que dafa leen dàq ah, am na ñu ñëwaat nit bu mu dem ba yaakaar ne rek bu dóoree dënam moom la non non bu ko kenn yaakaar man mii mun naa ne dans ma communauté bu ma dóoree su ma dënn ñu ne président def la nga ngi waaye. mais mais mais yàlla bu ne lii di nga ko am ala kuli ali di nga ko am bu ne day jeex ala kuli ali day jeex nga jàppee ko noonu réew nag ñëpp ñëpp ñëpp ñoo ñoo am sañ-sañ ci réew bi nee naa la fii ana bitik yi ana basari yi. léegi léegi léegi absence su ñooñu absence su ñooñu ak bu président pourquoi pourquoi eh. waxuñu ne Mbagnick pour quoi parce que nag bu bu dëgg di ñëwee dañ koy wax man lañ la ma ñooñu ëppalee du point de vue politique lañ lañ ma ëppalee du point de vue politique du point de vue popularité et du point de vue de duñ ma ci ëpple yow ñëwoo woon ma ne luñ ma ci ëppale. waaw man ndax yow ñëwoon nga wala ñëwoo man ko doon célébrer suma ngayoo xel. Ah, xanaa gisoo journaux yi ak Zahra Iyane Thiam yóbbu yóbbu cent vingt millions ci suma jigéen ñi. Eh. waa célébration loolu la ku ci nekk nanga nga fexe delluwaat fa nga jóge xeexaat ba dellusiwaat si waat ba gañe xam nga Macky Sall mun ta tere mun ta tere waa nga bu ñu ma buggee fal fal ma mun ta tere bu waa parcelle buggee fal Amadou Ba fal ko mun a tere bu waa Linguère bu falee. Ah, ah, Aly Ngouille Ndiaye ñu fal ko déedéet. Aly Ngouille moomu sax dégg nañ ne ñu ngi koy. ñu ngi koy fexeel. <laughs> waaw léegi léegi est-ce que fi ma bëgg a ñëw monsieur le ministre mooy est-ce que APR nekkul di ñàkk vraiment benn ci doole bu bu gën a. am solo li ko ko ñàkk loo ah. mooy c'est c'est lobbyeur ñi nekk ci di lobby. di wax parti ci biir parti bi di wax lu amul. ñooñu ñan la. ah xam nga leen. man xaw ma xaw ma leen de mais chaque jour je lis la presse. Eh. ñi naan Aliou Ngoye dañ koy monteel lii dañ koy defal lan la dañ koy Aliou Ngoye dañ ko monteel quarante cinq mille traquenards. Hmm. mais bu yàlla ne mooy nekkaat maire Linguère mooy nekkaat maire parce que population yi ñoo koy tànn. Ah, te nag ah, ah. nañu éviter invité na nañu invité di créer président Macky Sall ay noon yoo xam ne yi noonu yooyu amul. ah fii de ñu ngi koy waxaatal ne nitu démbam yi la nar a teg nee jëndee ko àndandoo tayam yi. Ah, yooyu jaaxal la yéen a ko gëm mais ku nekk un politicien pur et dur mënoo gëm loolu mënoo gëm parce que niti démboom yi ndomb tànk yi ñu amoon ci biir parti bi ndomb tànk yi ñu amoon ci considération yi ñu amoon ci population bi considération boobu mu ngi am ba léegi. exemple ci yow. Ah, maa ngi nii de. considération bi nga amoon ci moom ba léegi moom nga am. ma ne considération bi séréer si am ci man président Ndefleng ma nee woon naa man xam nga man biñ ma noomee ministre soppaliwuma benn doxin aw ma aw ma gardien kër ga toxuwuma suma kër ataaya ba ma doon naan ak su sumay doom lay naan ak may doom ba ma fa jógee ci laa nekk ak ma communauté dimanche bu jot bu ma fi nekkee maa ngi dem Adrien Adrien Senghor seetaani làmb ah? saa yu ñu séeréer si tegee ngel ma dem seet seetaan maa ngi sama njaboot man mun nañu ma dara. kon yow président faale la mu bañ la faale. moo yem si yow maa ngi suma population mais man faale naa ko parce que maag moom ñoo bokk dëkk Fatick. est-ce que moom faale na la. ah bu ma faalewul doon du ma def du ma dugal ci bi ma dugal xam nga ci daal ku la faalewul kañ ah. da lay du la jox yenn responsabilité yi. jërëjëf daf maa faale ba fal jërëjëf dalaa faale ba fal la monsieur le ministre Mbagnick Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax amoon mbégte waxtaan ak yow ci dem ak ay dund ñëwaat ci dund APR xëy na am na yu bëri yeneen yu ñu mënoon a wax waaye euh, lépp xajul ci tey en tout cas ñu ngi lay gërëm mbégte mu rëy lañ amoon ci sekk ak yow waxtaan wi. jërëjëf comme réussir nga prouesse jàpp ma ah maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm sa auditeurs yi aussi bu dee wax ji am na lu ci dérapé Mbagnick a mel de. léeg ñu naan day wax njaaxum léeg-léeg ñu naan du wax njaax njaaxum donc bu amee lu dérapé rek maa ngi excusé jërëjëf kon mbokk yi li ma nekkoon démb ak tey ñu doon waxtaanee alliance pour la république APR parti bi nga xam ni euh, taxawal nañu ko premier er décembre 2008 euh, njiit li di président de la république euh, Macky Sall tey nag ci 2020 bi weeru décembre bi ñu nekk am nañ ci fukki at ak ñaar boobu les parti ñu doon waxtaanee nag seen dund seen nekkin waaye itam seen tolluwaay ci tey donte ministre bi ragg na ko ba mu set waaye nag jafe-jafe yi moom dégg nañu ne ma nga cee APR Diaw Diallo moo nekkoon ci machine bi ñu ngi koy gërëm Fatou Thiam Ngom fare woon ci kaddu gi. dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen ñu yendoog jàmm